cours privé bay jabel nekkee ca ginnaaw ak APES ci yoonu ngent bi mu ngi leen di woo ci journée portes suverte yi ñuy amal te mu jàpp ko ci weeru octobre fukki fan ak fukki fan ak benn ci weeru octobre 2022 bi ñu nekk fukki waxtu jàpp fukki waxtu ñeent ci ngoon loole nag jëm ci visite yamuy amal ci biir lekkool bile waajur yi ak it ndongo yi daw leen ñëw ngir mën profiter profité wu ci opportunité yi le école di offrir jëm ci développement personnel ak intellectuel seeni doom Kourou Baye Jabell? Cour co privé derrière situé derrière la CAPES sur les deux voies de vous invite aux journées portes ouvertes le 10 et le 11 octobre 2022 de 10h à 16h qui rentrent dans le cadre des visites des locaux de l'école. Chers parents chers élèves, nous vous invitons à venir nombreux pour profiter des opportunités offertes par l'école Baï pour un bon développement personnel et intellectuel de votre enfant. co privé by l'excellence, notre credo.